Euh, maa ngi jam ñaajo depuis jeudi passé euh, kenn moomu wàll au fait euh, sama sama benn xaritu jëkkër mooma wàll sama sama dañu dëkkoon léegi moom ñu defaral ko test mu positif le lendemain comme ñun ay cas contact lañu woon ñu ñëw sama kër defaral sama waa kër yi test ñu positif kon ñëpp positif après loolu sauf sama borom kër mhm. kon yeen jotu leen sax développer ay signe ban leen defé test bi ngeen positif dal après dañ leen jël ci si si wa mais man premier jour bi nak avant jour bi ma defé test bi jour bob amon na ay signe comme lan. sama gannaaw gi da doon metti sama sama genou yi di metti articulation yi. Hmm. après ma am fièvre sama put bi mel ni damay am début angine ensuite bu may noyé muy sifflet mais après depuis jour boobu noonu amaatuma ben signe.

Mm-hmm. mais man par exemple jëluma chloroquine parce que damay allaiter. Mm-hmm. d'accord et pour le bébé la situation ça va. Oui, la situation ça va elle est asymptomatique. Mm-hmm. ana sa borom kër mom kon mom interné ñu ko mu ngi fofu kër ga. donc finalement mardi bi de positif interné nañ ko yobu nañ ko ci benen centre de traitement. d'accord mais moom sa sa xaritu jëkkër boobu naka ngeen def xanaa dafa ba mu dëkkee ak yéen comme même ni ñu waxee waxu feebar bi. respecter les distances sol les masques yooyu yëpp daanu leen def matukaay yooyu. si si pourtant nag dañuy respecter tout le temps mesure barrière yi kër ga tout le temps dañuy raxasu am nañ ay gel il faut alcoolique kër ga. mais moom nu mu def moom tamit tane na. waaw moom tane na tane na. au fait feebar bi comme grippe la rek grippe bu grip bu simple kese la comme grippe la wala nga ne da nga palu parce que signe yu noonu ngay am mais nag contamination bi moo gaaw man def naa deux tests mu négatif te sànq lañ may doog ko jox résultat deuxième test bi boo defee deux tests mu négatif euh, après dañ lay génne mais man foog ma xaar ba bébé deuxième am négatif mhm. ak sama waa kër yi ñu négatif am deux yu négatif may doog a génn

est-ce que est-ce que amuñu ñu ñu sélectionné ñoom tamit pour xaw leen mettre en cas. sama waa bureau def nañ defal nañ leen test te dañu négatif woon. sama famille ñoom ñëpp nekk di woote di xool sama proche ñu ko yëg ñoom ñëpp nekk tout le dañ may woo di ma di ma xool di ma seet amul benn si stigmatisation parce que ñoom xam nañ au préalable lan mooy feebar bi te am nañ information bi en fait toog yow kese bi moom xaw na metti parce que doo mën a y a des règles d'isolement doo mën a génn même booy génn ci couloir bi sax dañ lay dañ lay contrôler doo mën a peut-être que toog bi sa kër bi nga ko nam loolu c'est très normal mais vraiment fii moom rien à dire par rapport aux conditions